le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 98 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas de 8 cas contacts suivis par nos services et de 1 cas issu de la transmission communautaire. Nous Sept patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 130 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 18 sont guéris. Nous avons 112 patients actuellement hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population